mbokk yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen ndokkeel ci bis bi di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla dolli kattan te dëgëral ko noonu laa koy jaarale ci kilifa gu tedd gii di Cheikh Saliou Touré di ko jaarale ci Serigne Cheikh ak i mbokkam yi nga xam ne nii ñoom ñoo teewal sëriñ bi fii di ko jaarale ci mbooleem kilifay diine yi ak kilifay aada yi fi toog mbokk yi ñu fàttalente ci tomb bu am solo muy ak bennoo lu mel nii waxtaane ko baax na lool muy ak bennoo mbokk yi yàlla wax nañu ci alquran ne innamal muminuuna ixwa loolu information bu mu ñu jox la mooy yéen ay yéen ñi gëm ñépp ay mbokk ngeen waaye fa bay aslihu bayna axwaykum ndigal la nañ seet ndigal loolu ba xam fan lañ ca toll mbokk yi islaax mooy defar saalix mooy ku baax nekk fee loolu xaw naa yomb waaye nga nekk saalix nekk muslix mooy da ngaa war a jóg defar dëgg defar boobu nag dafa ànd ak coona dafa ànd ak coonay xel ànd ak coonay yaram ànd ak coonay jël ci sa daraja joxe mbokk yi ku bëgg a defar sa diggante ak sa mbokk faaw ngay nekk ci wetam ci jamonoy naqari ak jamonoy neex faw bu ko jamono tasaaree nga dajale ko ba mu mel new say nga sëpp ko fawu ngay lor sa bopp ngir jariñ ko faw itam nga koy nëbbal aw ñaawteefam ngir mu yëkkati ko coono yooyu mënu ca ñàkk mbokk yi àjjana ku ne xam na ne neexaay ga foo ko takk kawe na ndax suñu boroom nam ko waxe rek ngay xam ne lii neex na wa isa raayta thamma raayta naiman wa mulkan kabira loolu mooy ndaw ku fa dem gis lu neex ndaw def ku fa dem gis nguur suñu boroom bu waxee noonu kon la muy wax neex na fiha ma la aynu ra'at wala usnu sami'at wala xatara ala qalbi basharin la fa nekk bët mosu caa tege nopp mosu ko dégg jéggi na imagination doomu aadama waaye sunu borom da ko ñu koy misaal ci liñ xam ñun élève bu nekk primaire boo ko bëggoon a jël di ko jàngal ay concept yu élevé ci ay sciences yu rigoureux du ko xam mukk moo tax day wàcc bax ñëw ci lu ñu xam di ñu ko jàngal mbokk yi nañ seet loolu suñu borom wax fuñ ca toll mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bésu altine bu jot ak bésu alxemes suñu borom day ubbi bunti àjjana yépp ne kaay leen dugg kaay leen dugg waaye nee na bu malaaka yi de mu ne leen kaay leen bu ngeen demee kaay leen dugg mooy kaay ñaan leen ma ma may leen jéggalu leen ma jéggal leen ñaan leen yërmaande ma jox leen waaye mu ne ko ñaar ñoo xam ne nii noonoo jaar na seen diggante nee na ñooñu bokkuñu ci waaye nag nañ xaar ba seeni xol juboo ngeen doog leen a jox xéewal googu loolu nañ teet fuñ ci toll réew mi jaxasoo na ku nekk yaa ngi wuññi sa ay bi morom loolu nañ seet fan lañ ca toll ajjana jooju nag li muy neex neex neex suñu borom nee na iñaan ak soxor ak noonoo ak mbagnel ak ñeenaa ñeetaane ak yoy di nekk ci xol neena yoy yépp suñu borom da koy dindi aljana doog a neex waye lima fi wax ci neexay limi neex neex bu ca yoyé nekkee dutu neex bu ca yoyé nekkee dutu neex motax tax suñu borom ne wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilin lolou lay génne bam set wicc ba nga xamné ke gëna élevé martaba ki gëna soufé martaba da koy xol ba pare bëkk ci mom yéné ko ko ndax li yàlla def ci mom loolu lañ seet mbokk yi fan lañ ca toll fi ma taxaw seigne Saliou Touré taxaw na fi luy bëgg mat 40 ans di wax baat bi may wax benno leen ci diine yàlla ji loolu ñëpp man nañ ko sédé benno leen ci diine yàlla ji benno leen ci seen biir mbokk yi loolu fuñ ci toll nañ def introspection nañ xol suñu bop ba xam durant 40 ans magum jëm waxuma mak ci ay at mak ci yàlla di wax lu mel nii durant 40 ans nañ seet fan lañ tollu ci loolu wax na ko ba ba ba waxatut te man teewee naa fii xaj na am na ñu bari ñu ko dégg mu wax ne dee leen enregistré li may wax ndax bis a ngi ñëw duutuma wax àgg nañ ci ndax mën na ndax lii mën nañoo amati mu taxaw fii ndax dañoo bëgg a xo seet di seet di seet di xool ndax dañoo bëgg a toog di seetaan ba gisatuñ ko bu boobaa dinañ ko layoo te boobaa danañu yay ndax moom wàcc nañu ñoo ci des li mu waroon a wax lépp wax na ko li mu waroon a def lépp def na ko mbokk yi sëñ Touba am na bis mu tracé loo xam ne nii mooy doxal na àdduna Sénégal fi mu toll ci wàllu yàqute ci wàllu waxante lu ñaaw ci wàllu boo demee ci langue politique bi li ngay dégg li ngay gis ku nekk di ŋaañ sa borom suñ sëñ Tuubaa def na loo xam ne waxuma la Sénégal waaye Afrique yépp wala àdduna sépp mën nañ ci tënk di am résultat yu baax dafa am benn bis mu tracé ñeenti rëdd rëdd bu nekk mu bootal ko ñetti rëdd ne bii mooy yàlla sa borom lu digle na nga def lu mu tere na nga bàyyi lu dogal na la neex foofu nag ma dolli ci ne dogal na la neex mooy na def yow li nga war a def yépp ba yalla dogal nga dogal xamne dogal na yalla dafa jël dogal teye jël sabab joxe defal sabab bi ba seus bu dogalee nga xamne dogal na inna allaha la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu jall ci banen ne bii mooy sa mbokk laqrab moy mbokk bi nga neena na li nga war li la war ci mom war ko ci yow moy bokk pex mooy bëggante wóolante dimbalante bëggante wóolante dimbalante mu rëddaat beneen bootal ko ñatt ni ñatt yi nga war ci sa mbokk bi nga xam ni bokk mooy bokk pexe bokk jublu bokk yéene la ngeen bokk nag lu mu mën a doon moo xam diine ngeen bokk moo xam langue politique ngeen bokk moo xam da ngeen di liggéey ci société lu ngeen mën a bokk na ngeen ca bokk pexe bokk jublu bokk ci yéene loolee tax mu mën a avancé sëñ Abdou Lahad Mbacke tekki woon na ko nee na woon nit ku nekk nit ñu nekk la ñu seq mooy seen àdduna bala ñu caa mën a jariñu faw ñu takk ko néew say ba fu ñu ko nee ciri buntu ubbi ko ba ca tege mooy ki nga xam ne bokku leen dara mën naa am sax ate la gëmul yàlla nee buko xeb buko yab bum la togn bum la xeb bum la yab boko toñul tooñul xeeboo yabo yaboko toñul xebula yabula xeebu ñoy yabu la jàmm yi lii àdduna si suñ ko jëloon étudier ko mën nañ doxal aduna japp naa ne looloo taxoon sax Edem Koyo ancien secrétaire général de né nekkoon na tam premier ministre du Togo nee na l'Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie d'homme tel que Cheikh Ahmadou Bamba defena wax ji wax jii ma wax nii defe naa yër na ko doog a mën a wax lii wala yër na lu ni deme doog mën a wax lii te du murit du jullit yaakaaruma ne sax ne euh, euh, du sénégalais te yaakaaruma ne sax mas na fee ñëw mbokk yi sénégal gii am na lu ñu fi tàmbalee yëg muy waaso wax yi ni waaso kii nangam la kii nangam la kii nangam mbokk yi nañ jël waxi sëriñ Touba ji sakkee ko wax jooju bu ñu ko bàyyi abadan mu prospéré gis nga bu ñu ko bàyyee bu ñu ko bàyyee mu prospérer lii daal Rwanda jombuñu wala yaasu billaahi taala neen li may jeexale di ci attirer attention ñëpp mooy sama wax ji ku ne xam ne ne yàlla laa fi wax yonente bi laa fi wax Serigne Touba laa fi wax waxi sëñ Saliou Touré laa fi wax waaye nit mën na koo daggate ba muy lu bon loolu nemmeeku nañ ko ci réseaux sociaux yi te loolu nag dafa am lu ñu wax mutaabaa mantiqiya mooy suite logique su ma waxee ni fii laa jóge fii laa jëm da nga war a jàng fi ma jógee ba fi ma jëm doo con contextualiser ko doo cee mën a génnee sa àtte waaye doo dem dagg la la neex tasaare ko ñi koy def nañ ko bàyyi ñi koy déglu tañ nañ xam ne yàlla nee na in jaakum faasixun bi naba in fa tabayyanu bu ñu leen indilee xibaar bu baaxul settantal len ko bam wér wajal qulubana ala tawadudi bila tanazu'in wala tahasudi wala taxaasumin wala tadaburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khashi'in wa muminina mukhlisina salihin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh